jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi sëñ Moustapha borom solution la ñu fekk si war a séq ak moom waxtaan wu yaatu gis nañ politiciens yi ni ñu doxalee jamono jii mbokk yi journalistes yi léegi da ngay wax sax ñu jàppale tëj la ci kaso bi. lan moo xew actuellement Sénégal danañ ko ci laaj danañ waxtaanee ba tey gis ngeen combat Reug Reug ak Sa Thiès bi ni làmb ji demee danañ ci andi ay leeral danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi mais laata loolu dañ koy bàyyi mu askan wi. ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëñ Moustapha. barakallahu fiik alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa nabina wa maolana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dégg maa leen nuyu di siyaar di nuyu képp ku ñuy seetaan ci biir réew ak ci bitim réew xam naa damay wax sax waat waaye xam naa ne fii moom du ma fi gan ci bi mooy defe naa ñaareel yoon nga di ma seet si mm. waa di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu si Moussa tey bala maa njëkkee ak yow lenn ci waxtaan fi ma bëgg ñu tàmbalee mooy rab dañoo dégg ne rab mën na yàqal nit ki àddunaam ba mu jàpp ne sax yàlla boolewu ko ci ñi war a am ndekete rab moo dugg ci dundam di ko perturber di ko jaxase rab tamit lu doy waar la lan moo ko mën a saafara ak rab bu dalee nit ki nan la mën a xamee ne rab moo ko jàpp. waaw sëñ dégg maa lay sant si laaj boobu noonu ndax lu lu lu lu am njariñ la mm-hmm. ndax jamono yu toll nii maanaam dañoo dëkk nit ñi dañoo dëkk ak rab yi mm-hmm. maanaam bu nee rab nag moom mooy mooy jinne mooy seytaane mm-hmm. waaye rab nag lu tax wolof naan rab wolof lépp lu diis rek loo xamante dafa diis wolof da koy jël ab dàkkantal ndax xam nga nit fekkee ne rab da koo da koo digg maanaam jinne da koo da koo da koo dugg nga ne jinne la dugg rek yàq nga àddunaam loo tax ñu jël ay di ko wax rab waaye rab nag mooy jinne mi ngi mën ne nit Euh, bu faatoo ñu ne nit dafa faatu waaye du wax dafa dee ndax bañ baat biir diis moo tax moo tax ñu ne na nit dafa faatu wala dafa génn àdduna wala sax dafa suburu loolu moo indi nag baatu rab waaye rab moom mooy jinne mooy tamit mooy seytaane waaye rab nag dafa am ay xeet maanaam nit ñi ni amee ay xeet am ay ay tubaab am ay sinwaa am ay ay nit ñuul am ay naar noonu la jinne yi tamit amee ay xeet maanaam jinne yi nga xamante nag ñooy maanaam xeet yooy ne dafa am jinne yoo xamante ne jinne yoo xam ne yàq rek moo leen tax a jóg maanaam inna laa laa yof inna laa laa maanaam ñoo xamante ne daal dañuy dañuy yàq rek ñoo xamante ne si àdduna maanaam yàq yàqal doomu aadama rek si la si la si dëkk maanaam mooy ji seytaane ñuy wooy seytaane jinne yoo xamante jinne ju bon la ñu doon euh, am jinne yoo xamante ne nag moom moom dina yàqal doomu aadama waaye du ko du ko du ko sonal maanaam dafa am jinne yoo xamante ne bu la duggee dañ lay sonal di la daanloo ñoo lay daanloo ay kiris di di la feebarloo di di la des sax nga tàggaloo sa sago nga nga nga def ay yaramu nen maanaam doo nekk di nit daal nga xamante ne boo xoolee nit ki da nga xam ne kii jëmi nit ki dafa dem mooy jinne ji nga xamante ne mooy dugg di ko yàqal di ko daan loolu dem am benn jinne boo xamante ne moom day bëgg jinne joobu bu duggee bu bëggee nit maanaam day gis ne rek bëgg ko maanaam bu ko bëggee nag maanaam bu ko duggee rek moom moo ko yàqal lu baree ba di ko fiiree ndax jinne moom lañ wooye fararab wala corarab bu fekkee góor la ñu ne fara corarab bu fekkee jigéen la ñu ne ñu ne ñu ne faru rab mm-hmm. waaw loolu nag moom lu koy waral mooy jinne bu gisee nit bu ko bëggee ba bu ko bëggee da koy dugg mm-hmm. bu ko duggee nag moom moo moom moo koy takk nekk nekk nekk soxnaam wala mu nekk jëkkëram di ko yàqal mm-hmm. nga xamante ne moo koy géntulul di ko sëy di ko sëyloo ba di day dem ba yàq addunaam ci wàllu wërsëg boo xoolee nit ak jinne lan moo la wóote la nit bu bëggee maanaam bu la bëggee rek dalay defal lu ne waaye fekkee jinne dalaa bëgg dala la yàqal mooy du nangu du nangu mukk nga am plaisir si leneen mooy waral nit ki am soxna du maanaam du du yëg bànneex mhm. du yëg bànneex wàllu am am tamit wàllu wàllu liggéeyam sax da koy yàq ba nga xamante bu fekkoon ne nit ki dafa amoon alal bu ko duggee Euh, day yàq léppam ba nga xamante ne maanaam dara du dootu ko amati. Mhm. loolu nag loolu lu koy waral muy fararab fararab dafay tëj nit. Mhm. mooy waral nit yaakaar dara ba am si yaakaar rek euh, du agsi si moom maanaam lu mu yaakaar rek day tas. Mhm. lu mu yaakaar bu la waxoon tey suba danaa la ñëw seese jox la nangam. bu subaa kooku noonu du la ko jox maanaam dina ji mooy jël loo remplacé ko ba nga xamante ne daal di fil xel xelu nit kooku noonu ba ba du ko du ko def. nga xamante ne ko seqal rek koo xamante ne da ngaa maanaam bu fekkoon ne daa am koy bëggante maanaam yow ki ngay bëgg sax. maanaam ku la bëgg sax doo ko bëgg. boo xoolee ñi nga xamante dañoo yor faru rab. ki nga xamante ne da leen woon ginnaaw bëggu leen bëggu leen a gis sax kooku la ñuy bëgg waaye ki leen bëgg bu demee kooku noonu bu demee ba wëbbatiku ba bëgg leen a dootu moom dara maanaam loolu noonu lan moo koy waral mooy jinne ji muy far rab bi moom moo moo koy def moom moo la yàq moo la yàqal di la di la di di lépp loo xamante ne lu baax la loo xam ne yaa ngi koy bëgg rek da ko yàq ba ba du ak si yow waaw beneen jinne bi nag mooy jinne ji nga xamante ne mooy jinne euh, ba nga xamante ne moom mooy yàqal nit ki maanaam ki nga xamante ne moom dalay dofloo day def nga xamante ne wëbbati nit ki ba nga xam ne mm-hmm. jinne la mm-hmm. yi bon la mm-hmm. euh, moo tax nit ki nit ki dafa war a xam lan mooy jinne nit waru ragal jinne ndax nit mi nga mi nga dëkk ak jinne moo xam nga xam ko moo xam nga ñàkk koo xam waaye jinne yi ñi ngi dëkk ak nit ñi boo xoolee ñu baree bari maanaam ñi nga xamante ne ñu baree bari seen i maam bu fekkee ne maanaam ñi xamante xamante ne seen maam dañu yoroon yu mën ay xàmb wala yoo xamante ne wala jinne yu demee noonu bu fekkee ne dem ba xamante ne raaf jinne ya moom ñi ngi dund ndax jinne dafa mën a dund maanaam dafa mën day dund ay junni junni junni at euh, am na ñoo xamante ne i seen i jinne maam yi ñu ngi dox ba léegi ñoom ñoo leen di yàqal boo xoolee léb yi sax boo xoolee euh, bari na si ñoo xamante buñ génnee maanaam buñ génnee Sénégal dem si beneen réew beneen si beneen réew rek euh, dañuy tëju mm-hmm. luñ duñ mën a am liggéey te dañuy feebar sax maanaam bu fekkee ne sa sa rab ba ngay génn yow ngay génn ngay génn te tàggoo ko sax boo génnee da feebar. dara doo ko mën a amati ban fekk dellu si wala Sénégal doo doo doo wér. loolu moo ko waral mooy seen i jinne maanaam dañoo am seeni maam dañoo yoroon ay jinne te xamu te xamuñu ne sax am ñu maanaam am nañu ay jinne yoo xamante ne seen i seen jamonoy maam la jamono yàgg la jamono yàgg. nga xamante ne laataa ñu dugg si lislaam wala ba sax bi ñu duggee si lislaam nga xamante ne ay xàmb la ñu waroon dem ba bàyyi xàmb yooyu abandonné xàmb yooyu noonu mhm. jinne yi nag moom ñi ngi topp seen i sët ba léegi nii loo ma war a koo gis rek maanaam nga gis koo xamante ne njuru rab boo xamante ne kii lu jafe la ci fii si Sénégal mhm. mais lan saafara lan moo koy saafara waaw li koy saafara nag maanaam maanaam nit ñi dañoo war a delluwaat ci wàllu ñaan mhm. waa gëm ñaan nga xamante ne ndax jamono ji tool nii ñu baree bari maanaam wàllu ñaan wàllu cangat yu demee noonu defa defatuñ ko lu ko waral mooy dañoo gëmatuñ sëriñ si waaw xam nga nag maanaam li li naan ku gën a gëmul xar fa xuufa rek xar fa xuufa ne la xuuf waaw ci jamono jooju lañ lañ lañ toll lañ toll léegi nag li ñu war a xool mooy ki nga xamante ne moo war a faj ak ki warul faj ndax jamono ji ñu toll moom maanaam ñi nga xamante ne boo xoolee sëriñ si bu fekkoon ne 100 lañ 99 yi duñu ay sëriñ ñu baree bari mën nga ne ay téyër la ñu woon yu demee noonu jékki-jékki dugg si sëriñ loolu ma yàqal ñu bare bari dem ba nga xamante ne ñu ne sëriñ si mhm. ministère yi boo demee si ministère yi boo demee am ñoo xamante ne maanaam mënuñu seen liggéey nit boo demee fekkee ne maanaam métier boo dem nga ñëw fekk fa ñoo xamante ne leer na ñii kat moom li ñuy def mun mënuñu seen liggéey da ngeen leen fa bàyyi dem si ñeneen waaye doone kat li li bon daane ministre yi dara ñu bare ba danaan sëriñ si xamuñu dara te xam lu tax ñuy wax loolu mooy ñi nga xamante ne dañ siy dugg di nax nit ñeeg yu demee noonu waaye nag Sénégal moo demee noo noo xamante ne maanaam ki nga xam ne dafa toog di wax xam-xam di wax li mu leer na kii li mu wax xam nga xam na ko ñoo da leen fay bàyyi ne leen fa ñukk dem nga xamante ne li ñuy wax dañuy toog ba kii waaye wax dara maanaam li ñuy wax tegu benn xam mu leer na la ñii moom li ñuy wax xamuñu si dara ñu jël seen alal jox leen ko ñu nax leen bu noppee ñu ne sëriñ si loolu nag moom dafa ma méttee métti ba nga xamante ne ah, moom doy doy doy na waar si Moustapha ñu ñëw ci li xamante ni moom mooy wàllum seet waxtaane ko parce que seet tamit lu am solo la waaw seet nag moom defe naa moom defe naa waxtaane na ko sa émission bi la passé waaw seet nag moom yàlla may na si lu bëree bëri. waaw ndax seet moom jagle lañ si am jagle jagle boo xamante ni man bu ma xoolee rek damay xam li nekk si yow lépp. waaw bari na nag li may seete maanaam nit ki ni ma ni ma fekkee rek noonu laa lay seete ndax man euh, maanaam sa loxo ba ma ko joxee ba ma xoolee sa rëdd baaraam yi rek. damay xam li passé si yow maanaam li nga xamante ne dund nga ko sa doo sa sa lépp dama la koy wax mm-hmm. ne la dugg nga fii maanaam mas ngaa dugg kaso mas ngaa divorcé lépp dama la koy wax li la wax la na yow lii mooy sa métier mm-hmm. nga xamante ne man gis naa la ma soog lay wax li nga xam ne mooy sa kanam wax la sa sarax wax la sa biddiw wax la wax sa wax la sa wax la li nga xamante ne moo moo la nar a yàqal lépp ma wax la ko wax la sarax bi nga xamante ne boo ko defee loolu lépp da nga si da mucc waaw loolu nag moom ak jagle boo xamante ne yàlla moo ma ko defal mm-hmm. waaw loolu nag moom nekkul lu ma jàng si téere waaye loo xamante ne jaglal boo xamante ne moom bu ma xoolee nit rek damay xam ne nekk si yow lépp du ma nag moom xam naa lépp ndax ba moom yàlla doon ko xam euh, moo tax yàlla ne saalika min anbaay xay bi nooxi ileeka maa kul tax la moo anta wala xamoo ko min xable haasa fasbir ina xaqabati li ma tàqi na na xay ba yoo xamante ne may Euh, yàlla mayul ne nit ne ko suba da ngay de loolu moom yàlla mayu ken mooy xëy bi bi nga xamante ne moo tax ba yàlla ne waxe ne allahu maanaam xalimu xëy bi wa sahaadati maanaam yàlla rek moom moo moo moo moo xëy bu yàlla rek moo ko moo moo moo ko moo am euh, laa yàlla mu xëy ba waaw laa yàlla mu xëy ba euh, maanaam yàlla rek moo laa yàlla mu xëy ba ilallah maanaam yàlla rek moom moo xam moo xam li nga xamante ne mooy xew suba waaye am na xëy ba boo xamante ne yàlla da koo jagleel nit nga xamante ne moom nit dana xam toog xam ne suba kat dara dana am waaye Euh, bis sàngam lay am loolu moom mënu ko nit mënu xam waaye am na luy waaj a ñëw nga xamante ne luy ñu waaj a ñëw da nga ko yëg sa yaram xam ne am na luy am moo xam li dal si réew mi wala loo xam ne dafay am ñëw sa famille lu mën doon yàlla dala ko yëgal nga xam ne kat am na luy xam lu luy xew nga xam sarax bi nga nga génn ko mm-hmm. waaw waaye nag moom comme li ma ko waxee rek mooy xay bu moom Euh, maanaam suba la nangam dina dee yu dem noonu xëy ba boobu rek la yàlla naan bal xëy bi wa maa kunta ladayhim iz haajamu amruhum wa hum yamkuruun waaw loolu daal mooy jagle bi nga xamante ne moom la yàlla def te loolu moom yàlla dañoo koo jagle nga xamante ne bi ñu xoolee nit dañuy xam saraxam xam biddéem xam tabix tabixam ndax nit moom mënut a seetal nit euh, mënut a ñaanal nit te xamul tabixam tabixam nit maanaam sëriñ su bare bare loolu mooy seen kii mooy dañoo dañoo xamul tabixa ndax mënoo ñaan te xamoo tabixa am ñoo la xam mooy la ñu xam maanaam ñu dem dem gëstu benn tabixa boo xamante ne maanaam nit ki nekk nekk naar yu ñu xam tabixa naar yu nit ñëw nga ñëw ñaanal ko tasante mu nekk tabixa naar yu nga ñaanal ko euh, yàlla sottil ko nga kooku noonu dem si beneen xaritam ne ko kat sëriñ bi wax dëgg yàlla sëriñ bu mën a ah, bu aay la bu mën a ñaan la ñëw indi xaritam boobu noonu mu ñaanal ko même chose waaye kee gisul dara mu ne ah, sa sëriñ bi wax dëgg yàlla li ma ñaanal euh, euh, moom gisuma ko fekk na kee la mu ko ñaanal gis na ko waaye kii li ko ñaanal gisu ko mooy tabixam yi ñoo wuutee nit ki bala nga koy ñaanal da ngay xam tabixam xam ba xam tabixam naar yu la tabixa turaa bi la tabixa xawaayu la nga xam tamit sarax bi la sarax bi ndax nit moom ñu bare bare dañuy jekk-jekk rek génn sarax mm-hmm. sarax kenn koo génn noonu sarax nit ki da ngay xam sa tabixa boo xamee sa tabixa fekk ne xawaayu la da ngay génn sarax bi nga xamante ne saraxu saraxu tabi tabixa xawaayu ngay génne loo xamante ne si kaw la ñore lu mën ne ay poma yu demee noonu bu fekkee ne tabixa turaabi la nga génn li xamante ne suuf la ñor ñore lu mel ne ay yu demee noonu loo may loo may saraxam bu fekkee ne ki nga xam ne tabixa turaabi la la amee nga génn euh, sarax bi nga xamante ne moom waxtu taw rek maanaam waxtu bi xamante ne moom la moom la taw waxtu new rek la lay ñor leñoor nga génne nga génne sarax boobu noonu kon saraxa sarax dafa sarax dafa war a aajoog manaan tabixa mm-hmm. ah, si tabixa ngay xool xam la mooy sa sarax mm-hmm. ah, xam tamit nan ngay ñaanale nit ki loolu lépp bu dëjëwu si yow rek sa ñaan des na. sëñ bi ñu ñëw ci gàllaaju li nga xamante ni moom mooy toj liggéey ku cat jàpp wala ku ñu liggéey mu bëgg liggéey ba toj ci moom. waaw cat liggéey euh, toj liggéey waaw loolu nag moom am nañ si ay kaaraanga yoo xamante ne ah, ay cangat la nag moom ay cangat cangat yoo moom boo ko sangoo Euh, lépp loo xamante ne nekk na si yow rek day day dina dina dañ maanaam da nga woyof tool boo ko sangoo premier jour nga sangoo woyof tool mu xamante ne moo xam muy liggéey moo xam muy cat moo xam muy lépp la da koy da koy dindi waaw lépp lay dindi waaw loolu moom am nañ si ay yoo xamante ne bu la koo kiyee premier jour nga laal ko nga xam ne nga xam ne laal laal laal laal nga càng laal nga càng waaw canga moom benn benn la fi amul feneen waaw canga di moom la ko joxee premier jour nga koy sangoo xam ne am na lu gé nekkoon si yow génn si yow loolu da nga koy sentir mm. nga xam ne génn si yow Euh, lépp loo xamante ne moo la tëjoon rek loolu dana ubbeeku. si Moussa borom solution bëgg naa ñu waxtaanee nopp gàllaaju nopp gan nopp moo gën a wér ci nopp bi. waaw nopp nag am nañ si ay solution yu bëree bare bari bari bëri. ndax euh, noob nag moom lu ñu yàlla may la moom itam. Mm-hmm. waaw képp koo xamante ne moom am nga maanaam nga am koy bëgg. te loolu nag moom su ma sañoon ku ma koy defal ki nga xamante ne moom mu fekk koo xam ne da nga bëgg a ndax man li may bañ mooy noobal nit ba noppi fekk ne koo xamante ne xëy na da nga ko bëgg da nga ko xëy même no noob def yooyu moom bëgg ko waaye na nekk koo xamante ne moom mu leer na la kii nii bëgg nga bëgg nga ko te yàlla tax wax dëgg yàlla boo ñëwee man noo man man noobal man noobal la ko bu fekkente ab diggante la boo xamante ne maanaam da na dëngo dëngoo ñaar boo ñëwee tamit incha allah dina si def noot boo xam bi nga ko defee moom moom ñetti fan boo ko amee mu mu jàpp ñetti fan. Hmm. bu la defee nobbi ni nga xamee nag jàpp na mooy bu ko defee premier jour deuxième jour gis ne xale xale bi maanaam boppam mi ngi metti hmm. bu boppam metti xam ne jaa jàpp jàpp na. waaw bu boppam bu la boo déggee ne ne boppam mi ngi metti xam ne jàpp na. Hmm. waaw bu la loo ko wax da koy def. loolu moom kenn mënu koo dindi amul benn sëriñ bu ko mën a dindi sama noot. xanaa man ma dindi ko man maa ko mën a dindi. sama noob moom man dong maa ko dindi man dong maa ko dindi keneen mënu koo dindi kooku nag keneen ku dem si sëriñ tamit di ko maanaam beneen sëriñ mënu ko li ma nopp loo xamante man maa ko def ba ba ba jàpp ko amul beneen sëriñ bu ko mën a dindi. yow boo xasee ba nopp ne siise siise mënuñ ko toj. saya kenn mënu koo topp toj kenn kenn kenn. loolu moom dama koy garanti noob moom mën naa la defal maanaam nga ñëw ne ma damaa am koo bëgg man am na ñoo xam dañuy ñëw fii ne ma maanaam ñaari at maa ngi dem si sëriñ si damaa ñaanloo ñaanloo ñaan ñaanloo waaye dara dara damaa yàkkale kii dafa dëgër bopp. ma ne ko léegi toogal xaar ma 24 heures laa la may 24 heures. wallaahi dana la woo maanaam nel wax la ay sentiment am. 24 heures mën na ko toogal déglu ñu dem ba toog ba timis wallaahi mu woo ma ne ma ne ma woo na ma. te moom dem ñaari at mi ngi lekk ne man man jàq naa sama alal lu ne dugg naa si dem fëne fëne fëne dem ba nga xam ne gëmatuma sax sëriñ. man ne ko yow téye sa alal rek nga toog bu ma jox dara nga ne mu ne ma waaw ma ne ko waaw léegi balaa 24 heures jox ma turam tur seen tur yi ñaar nga toog déglu ko wallaahi la dig bu bu bu la woowul. loolu laaj ma loo ma jox ma ma jox la ko. laataa 18 heures na ko mu woo ma ne ma woo na ma. ne ma wax dëgg yàlla moom li nga ma defal nii wër naa ko fu ne fu ne fu ne mënu ma koo am. kon noot moom yàlla dama say jagle loo xamante ne man su ma amee man seen tur rek ba ma ko amee. waaw noob nag moom dafa am tamit ni nga koy ni nga koy kii am na yoo xamante ne fas lay doon maanaam bu ma ko jëlee am seen tur fas am jat bi may jat jat ko fas ko ba juróom-ñaari euh, gaw yi gaw yi mat ma gas benn kii def ko si boole ko jël benn mool bu kii ba ma ko sëfee mhm. maanaam sëf lay doon am boo xam ne sëf doon am boo xamante ne lu ñu naan lool nag xam naa bu way dencate ñoo ko war a kii maanaam dëgëral sa sëy ba nga xamante ne du ñaar kenn du si mën a bàyyante sa moroom mhm. loolu moom boo ko joxee mu lekk ko sayee beneen bi nag mooy sëf bi nga xamante ne moom bu ñu ko sëfee wax dëgg yàlla fekk dindi woo ko man rek maa ko mën a dindi loolu moom dama koy garanti waaw bu fekkee ne wàllum fay wax ak wàllum ku bañ a dugg kaso wala sax ku ñu tëj bëgg mu génn yan gàllaaj moo ci gën a gaaw fay wax ak kaso waaw fay wax nag moom am nañ si ay maanaam wàllu kaso nga xamante ne dafa koo xam ne dafa am ay jafe-jafe jafe-jafe euh, yoon moo xam lu mu garaaw garaaw bu ñëwee xanaa bu ñëwee lu mu garaaw garaaw garaaw wallaahi du dugg kaso. loolu moom dañ si am secret yu wér nga xamante ne ñu ngi koy liggéey lu man ne euh, la ma xam ne jaxa daal lañ koy lañ koy liggéey boole kook li sët manaam yi maanaam doom yi mi laxtaateelu naxtaateelu maxtaateelu jaxtaateelu xaxtaateelu mooy sët yi nga xamante maanaam doom yi ay doomam bu ñu ko boole boole kook li ñu wooyee Euh, tagangate li ñu woowee tagangate tagangate mooy benn doomu gerte la boo xamante ne xam nga gerte moom boo ko xaree da nga siy gis ñetti doom am boo xamante ñaari doom am xam benn doom bi nga xam ne benn doom mooy tagangate boobu lañ koy boole secret boobu noonu boole ko xaatim bi lu lu lu problème bi nu mën di toll wallaahi kenn mun laa dugal kaso loo moom dañ koy garanti fekkee koo xam dafa nekk si biir kaso bi ñetti fan ma génn ko ak nu mu mën di tool danaa ko danaa ko danaa ko génne waaw léeg-léeg am ku ñëw koo xamante ne Pape Ndiaye bu wal fajri dañ jàpp ko yow mën nga koo génne ku mën di doon bu ñëwee ma génn ma ma ma génn ñetti fan du ko weesu te man ma du ma laal dara mm. ne ko bu génnul fekk génnul man ma laal dara loolu moom dama koy garanti mm. bu ñëwee ñetti fan mën na ko toogal xaar ñetti fan dina ko yow demal ñibbi defoo dara wallaahi ñetti fan ñu ma génn ko loolu moom secret bu wér laa si am boo xamante ne man moo tax man boobu koy defal ne dama naan toogal ba gis man samay liggéey yu bare bare man dama lay dama la dama la la xaaral ba gis nga soo a jox li may jox. sëñ bi bu dee ku bëgg bayre wala sax ku bëgg wërsëg wu yaatoo yaatu maanaam alal yu bëree bëree bëree bëri bayre ak wërsëg bëgg naa nga xuus. waaw loolu moom càngat la rek xam nga mu maanaam wërsëg ak bayre ak yëpp moom euh, càngat la rek de càngat. waaw càngal moom nit moom ku la ëpp la lu ma sangu rek moo la ëpp wërsëg ëpp la lépp mm-hmm. waaw bay moom am nañ si kii sunguf soo moom boo ko comboon teg ko fi lu gaagaaw da nga fa gis ñaar ñaar fukki nit yu fa yu fa taxaw wala téeméeri nit yoo xam ne lu gaagaaw da nga fa gis nit taxaw taxaw fi maanaam boo ko jëloon comp ko rek waxuma nga teg ko sa place de nga suy ko sa place de waaye nga jël nga comp ko fii rek uh, am boo xam beere ne beere beere njaay lay doon xam hmm. uh, koo xam ne ko dafa bëgg beere ñi ñu jublu ko hmm. nga xam ne sunguf lay doon moom bu fekkee ne ki nga xam dafa bëgg ñi ñu jublu ko bu ko sangoo moom foo toll moom turam rek lay dégg fu mu dem dana ko xaaj na ko kaay toog hmm. waaw loolu moom fu mu dem moom moo fay gën a fees muy sangat bi am boo xamante ne moom Beere Ndiaye lay doon Beere Ndiaye moom bu fi ku mën doon bu ñëwee damaa ko tompal nga toog man moo xam muy muy muy muy muy muy muy muy nob bi lu mu mën doon boo ñëwee dama naa la isee nga xool nga isee xool nga toog toogal say bët nga xool mën a jëlal jëlal sunguf si nga coomb nga teg ko fee mu coomb teg fee lu gaagaaw dana gis nit ñi wër ko kon loolu lu ma looy instant la ba xam ba ba ñam ko maanaam da nga koy ñam ba ba ba xam ba xam cafka gi nga soog nga soog a joxe li nga jox. joxe li nga yor sëriñ bi bëgg naa ñu xuus ci li nga xamante ni moom mooy takk xala takk xala wala sax góor gu tëlee. takk xala nag euh, maanaam wala góor gu tëlee comme ni ma ko waxoon rek am na yoo xamante ne nag moom euh, rab moo koy def. maanaam rab rab dafay def nit maanaam du mën a sëy. xam comme li ma ko waxoon rek muy lu mel ne faru rab. Euh, far rab dana ko dana ko def nit boo xamante ne nit euh, maanaam rab da koo dugg daal mooy waral du mën a sëy wala du yëg bànneex ak yu demee noonu loolu nag da am cangat yi lu mën ne kaaraan kii cangat yi lay jox bu la ko joxee euh, bu fekkee ne bu fekkee ne rab la dina deñ bu fekkee ne loo xamante ne ab liggéey boo xam dañ koo def dañ koo def moom it di di dina dina dañ muy takk xala lay wax askan wi lay suivre mais ndax tul tamit mi nga am ba léegi bëgg naa nga leeralal waaw loolu nag moom bëggoon naa si wax bu baax a baax ndax tul moom xam nga jamono ji ñu toll moom maanaam insécurité dafa bari maanaam maanaam boo génnee sa kër sax yaa maanaam sa xel sax du daal mm-hmm. jamono ji moom tul maanaam tul moom nit ku ne war nga ko am si jamono yi toll nii mm-hmm. waaw tul moom am nañ si ay yoo xamante ne ay façon yu bari mm-hmm. ndax am na si boo xamante ne boo ko fekkee ne jox na nga takk ko boo ko takkee paaka du la dugg am yoo xamante ne maanaam bi nga xamante ne Euh, paaka wala jaasi du la jege maanaam bu fekkoon nit dafa jël paaka wala jaasi ñu jubale ko si yow balaa agsi day day lëmm muy ñaari xese waa day damm waa balaa agsi du agsi am boo xamante ne moom du la du dugg waaye dana agsi waaye du la dugg am boo xamante ne moom du agsi moom am boo xamante ne lu ñuy woowee maanaam tullu fital xam lu jafe la moom la wax ne lu jafe la boo demoon fii ba kii doo ko am am na si yoo xamante boo ñëwee nag moom dañ dala ko isin bu mu mën doon moo wax nii wala tul fital dama koy tàkk si garab nga xool nga dóor ba xam den den dina génn waaw tul yoo xamante ne tul yu wér a wér wér yu wér yoo xamante doo ko gis fenn waaw loolu man nag dama man li ma fekk ñëwoo ba toog si man rek mënoo mënoo mënoo mënoo xam ndax man moom samay mbir moom lu mu mën di doon da nga koy ba xam ba xam ne lii lu wér la nga soog koy jël du ma jël du ma amul leen looy ñëw mën ne la am demal yóbbu déedéet ci kumpa déedéet dañ koy essayé ba mu leer nañ nga soog nga nga soog nga soog a kii. waaw nga soog a fee waaw. leer nañ ay ca mbokk yi dégg ngeen sëñ Moussa borom solution waxtaan wu am solo euh, bi mu waxtaanee tey mu nekk waxtaan woo xamante ni euh, ngëneel la nekk waxtaan woo xamante ni tawféex la ay ca ma téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci daara jëy Mouhamed Rasulullah